ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daar yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xam xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal Alquran al Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين dañoo joxoon kii rek benn fooy si la ñu nekk di kii quoi di topp euh, exercice yi di ko def nice ba defar suñu forme bu nice nii quoi. lii moom am solo lool wax informatique bi am na solo am solo goo xamante ni daanaka pour le monde entier bi parce que daanaka moom la ñu utiliser léegi ndax boo xoolee lii nii ab divitant moo ko def daal divitant boo xam ne day soog commencé. moo tax bo si Daara Koki TV fii si Daara Koki tamit am na ay xale xereñ lool yoo xamante ni ñoo kaabale lii bi ñoo kaabale câblage bi installé machine yi en même temps ñooy def informatique bi tamit kon macha allah dañuy liggéey dañuy rafetlu liggéey bu baax a baax. monsieur bu baax bi de mooy moo ñu ko jàngaloon depuis année scolaire. promotion annuelle si lañ nekkoon nii. non informatique moom dafa yomb moom moom jafewul bokkul ak yeneen matière matière bu neex a jàng matière bu neex a pratiquer la tamit afa bi adabina yastajiluun afaraita in matta'naahum siniin summa jaa'ahum maa kaanuu yuu'aduun maa aghnaa anhum maa kaanuu yumatta'uun وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ci daara ji dox bu daara ji joxe daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim